Thank you. salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna euh, mu ngi nii euh, gàmmu Taïba Niassène la ñu nekk nii ginnaaw bi nga xamante Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass mu ngi noonu toog euh, ñu julli fajar ba pare bi mooy ñetteelu yoon courant bi di coupé ci biir gàmmu Taïba Niassène waaw loolu nag kenn xamul lan la xamuñ sabotage la xamuñ lu mu a doon waaye ak li mën a xew mooy que ne comité d'organisation bi mere nañu lool lool lool lool autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci localité bi commencé ko ci gouverneur ak ñi nga xamante ne ñoo nekk di liggéey ak moom. kon ñu wax leen rek ne leen gàmmu Taïba Niassène a ngi nii ñu ngi nii euh, bi ñu demee ba julli fajar ba pare courant bi coupé waat na troisième fois ginnaaw bi nga xam ne coupé na ci trois heures du waaye mu ngi waat nii coupé waat na. fii la xewee ci fi nga xamante ne nii fii la bàyyi gane àdduna muy Cheikh Ibrahim Niass ñu nekk di guddi gi nga xam ne ci la gane àdduna ñu ñëw di ci ñaan di ci jaamu yàlla waaye courant bi staabulul benn yoon ndox tamit dafa coupé ci journée bi yëpp euh, mënuñu xam ndax sabotage la wala lu mën a doon waaye daal ak lu mën a xew mooy yéen ñi nga xam ne yéenay suivre euh, chaine bi di Avenir Média ngeen xam rek ne euh, fii ci gàmmu Taïba seen édition 2022 courant bi dafa doon coupé à tout moment waaye ndox mi itam journée bi yëpp nit ñi amuñu ndox loolu moo xew fii ci Taïba seen ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax na leen gàmmu Taïba Niassène édition 2022 moom ñun duñ ko gaaw a fàtte